nag laa mhm. ci sama répertoire yi may mën sa def yëpp def ko mel ni medley ci yeneen ñaari yu bees mhm. benn laa ko way yaayu waali bala ko sekk xaar ma yëkkale ah. ma paree ci jaaga way sama yaay mhm. ci beneen muusu boo xam ne bu ees la ngeen ko dégg donc lu tax ñu way jaaga jaaga dafa nekk sunu soxna mag con bala ko sekk lu metti dal suñu doom mhm. li ko dal ñu war ko mën a réconforter mhm. te duñu xaar ay jàmbur din su njëkk mooy Thione Ballago suñu mag la nekkoon ñun mhm. yàlla jël ko yàlla na bu bëggee dañuy dañuy dañuy ñàkk on pas à ñu ne déetuwaay taawam bu jigéen yàlla jël ko kenn xalaatul woon loolu donc ñu ne déetuwaay waajuru jigéen dem metti Ah, ku ci nekk nag am na nooy jaa jàppale sa sa rak wala sa doom. Mhm. Wally mu dénkul ma ko mu aw sama loxo yi baax lool gore lool donc ma daal def hommage ci jaaga ak joon ak moomi looloo tax ma tëj. ban réaction la ci Wally. ba réaction parce que moom yëgu ko. Mhm. yëgu ko yëgu ko sax. yëgu ko <laughs> kon exclusivité la koy yëgee nii. te ndeysaan ba ma demandi di ko jaalee la ma ne papa dégg naa yaa ngi studio man ko waaw ah, mënuma. jëlal sa son nga ñëw enregistré ko fii ci kër donc bi may dem sax ci këram di enregistré am na yoo xam ne yëgu mhm. benn yoon daal la yëg mu yëg ne maa ngi ci suuf mu lay wax leen sa papa mu ñëw di reer mhm. keroog ñoo bokk benn añ ku dëm sax la ma jox ñu daal di reer pourquoi nga nëbb ko ko le choix da nga mu bañ ko yëg waaw bon du du loo xam ne xam nga studio du loo xam ne c'est quelque chose de très confidentiel studio loo xam ne lu la loo xam ne ba ngay def surprise nit ki mu ngi mel ni tuddee doom. waaw ah. booy tuddee doom nit tu n'es pas obligé ko wax yow laay tuddee doom. wala mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. da koy def moo xam ne c'est c'est c'est spontané. macha allah donc et voilà album bi loolu moo ci nekk. laay son bi nga sama yaay euh, euh, toujours dama ne ñaar ñii dama def mukk album te duma leen rendre hommage bi sama ndey. Uh-huh. ak Serigne Saliou Mbacké ndeysaan donc ci morceau boobu laa craqué uh-huh. parce que damay woy sama yaay dem gi mu dem ni mu demee ni ma wóoytee ak li dund ci biir woy bi ñoom di leen gañ daal di dugal ay kër Bamba wo ma wax nag man Serigne Touba ni ma def fu ma jëlee ak fi ma fekk ak li def ci laa craqué ci biir ci ci biir man gars yi nañ dindi jooy ñu mo dama ci parce que c'était naturel dañ ko et puis Salam Diallo dañu gis ne saa yu wax ci yaayam rek xolam dafay tooy

il faut que joxe ay message mm-hmm. yoo xam ne dafa war a dem ci suñu doom yi suñu sët yi suñu jarbaat mm-hmm. nanu fonk waajur ndax waajur fi fonk macha allah yaa ngi wax léegi trente ans de carrière lan lañu war a mën a xaar ci album bi Salam Diallo mu def influ euh, ambianceur comme ni mu ko doon defee ndax gis nañu léegi musique bi dafa xaw a soppeeku am style yu bees yoo xamante ne moom la ñu tàmbal sénégalais yi xale yi gis nga léegi musique TikTok la ñuy def euh, égotrique bi la ñuy def moom la ñu xew la ñuy xaar Salam bi woon wala bu soppeeku waaw mais tu sais quand tu fais un album. Mhm. le mu ngi des staff. parce que man je le dis haut effort fort haut effort que je suis un Balakman à 100 Je ne je dis pas que y a def livres wala dañ ñu raw wala des choses comme ça. Mhm. mais man li nga xam ni héritage musique sénégalaise je dois le prôner man suis un ci donc peut-être que dans l'avenir

gën a li mu nekk ci man sax du Sidi Diop nekk ko ci man. Mhm. ndax Kéba n'était pas destiné à être un chanteur. c'était footballeur ah oui. maanaam xam loo ko. Kéba maa ko def woykat te euh, nekkoon koo xam ni mooy caatu ñoom Thione Seck. yaayam jël na koy ngoom dénkoon ma ko. ma nekk ak moom nekk ak moom nekk ak moom muy woyantu man ko yow woykat nga mu reetaan ni ma bàyyi ma. ma topp ko ci topp ko ci mu bàjj man nekk ñaari at yoo xam ne dama ko tong juxulu du moo xam ak ba benn bés mu jaar sama soirée fekk may woy benn woy mu dugal ci coppati sàmba naan yàlla sàmbay naan man ko ma sa ci laa ko jëlee mhm. non seulement mooy aw mooy mu nekk sama manager di ma manager orchestre mu ma tasee ñibbi mu jël xaalis fay musicien mhm. mu nekk nag koo xam ne jusqu'à présent man du ma ñaan du ma leb du ma mais Kéba defe nañu fi mu nekk nii man vétéran la retraité la chaque fois. day jël dafa ci dugg salaam doguma la yow lépp moom. Mhm. loolu lañ ko mën a posé ci question lu mu ci mën a wax Serigne Saliou laa la giñal mhm. dañoo dem seeti ko si di ñëw toog bu wax ak moom dénk ko kàddu yi koy dénk ba pare nekk wàcc ci Serigne Saliou. ne sii di dañ dem di rey. Mhm. waaw tey rey amul. dëgg la waaw bàyyi ma nii. dëgg la dëgg la macha allah Assane bi mu koy wax wax na ko nee na bi muy njëkk a détecté talaawu Sidy Diop. waaw. soirée kii la ñëw. Mhm. moo ko jël tekk ci loxoom. ndeysaan. waaw tey kon moom bu si am dam mais kii la. ba tey bu yoroon gens kat. wala mandikat. wala taxawaalukat. wala wala ñi fi koket. kon salaam du ko nangu bàyyi. walaay dëgg la dëgg wér macha allah Assane am na solo de walaay. walaay am na solo. du àddee sax parce que man. àllarba waaw du dama je ne demande mu koy defee allah. te waa man tabaski du ma fekk daf may fekk Amérique sama kër soxna. Mhm. mais ci kër mu ne ma Kéba indi ndeysaan ma jékki-jékki sama buntu kër kookal la papa Kéba moom bu yónni yàlla kan ñu la ñu ñu la waa kër famille Kéba ndeysaan jël ay diwlin ay xaalis mais Kéba toog loo wax ci moom mu ne bu duloon Salam Diallo du am woykat mag bu mel ni Thione Seck ma penn Seck Assane Ndiaye Ousmane Seck ma yow booy lim rek man nga lim. Kéba fan laa jëm ak moom. ko defal la motax tax. mais fan laa jëm ak mom mhm. am na solo macha allah lan seq yu baax yi taxoy wax. waaw waaw. c'est important. macha allah am solo contane nañ bu baax euh, lan ngay wax sa fan fi lay seetaan. mais euh, ban rendez-vous nga leen jox parce que gaay na mat nañ seen day nga teggat fi day yëngal fi de. album bi dal genn na. waaw dem seetaan ko ci chaîne YouTube Prince Art. Mhm. man dal amna naa am naa sag mhm. parce que yàlla rus na ma ci ñi nga xam ni mhm. ñoo nekkoon ci man ku ci nekk tey yaa ngi mënal sa bopp di dem mhm. am na ñoo xam ni sax tey boo doon ci salaam la jàll di ne mais salaam jàll mais qu'est-ce que la man du ab taasukat laa ab mbandkat laa li may def ngeen ko yàlla di ma ci rus donc man